bismillah mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci seen chaîne Tactic TV am yàlla yàllaay buur ñàkk yalla itam yàllaay buur xanaa lii la olof njaay di wax naan alalu ku sàggan ku farloo koy jëriñoo ginnaaw bu mu bàyyeekoo ci groupe Futurs Médias oustaz Taib Socé jamono ji mi ngi liggéey foofule ca E-Média oustaz waaraatekat bu siiw lool ci biir réew mi di Taib Socé mujj na di wéyal njàngaleem ak i waxtaanam foofule ca groupe E-Média ginnaaw diir bu gàtt a chômé wax la ko fa jëlee woon na ñëpp xam nañ ko duñ ci dellu si waat bi mu toll nii li wérte wóor mooy ki lay di oustaz Tayib Socé mi ngi dikk dajee soppeem yëpp foofulee ca ITV ak i rajo bee ak bànneex moom la oustaz Tayib Socé am ci liggéey ak waa kër taskatu xibaar yi di groupe E-Media di kër goo xamante ne ni oustaz Tayib Socé jàpp na ni xam-xam xarañdeef doole ak njariñ lu bari moom moo fa nekk ba tax ñu jàpp ne ñàmbaaru oustaz Tayib Socé dikte ak bànneex gu mu am ci liggéey ak ñoom ànd loolu kàddu yu fasaa yi ko yàlla di may muy génne dana tax lu bari ci ay déglukat di ko uti ca e-média ndax waarate ya kaddu ko diine lislaam gi nga xamante ne nii ci la kile di oustaz Taib Socé di waxe muy lu am njëriñ te amal solo waa réew mi lu bari ci waa Sénégal taamu di ko déglu ak seetaan ñi koy déglu bari lool moo xam waa jàkka ji wala waa jàngo bi bis ni ki tey waaraateem yi ñëpp namoon ma ngay jolli ca rajo ak télé bu e-média i rajo ak i tv jërë ngeen jëf